أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صد لساني نور جناني سافر أماني وسد براي سهل التغيير لقد تمير فلتكفي جور لمن يراي وانقش إيالي من الضلال وبالألال خالد سراي سنه تاب كل الكتاب وقل ما تاب أسراي يا خير ربي خير مربي تايب تخذ بهات الرجاي صلي وسلم على المتابع بكل يحسن بالمتايب اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ak seeni gëstu ci lislaam ak ak sañ tub baax Seex Ibra moom ni mu ko daan taxawale mooy ni ko sëñ Tuubaa santaane no xamun yoa si mawlida nabi yo na babul da fala yo sabu xada loo lu ma an faaxe bi mawlidul musarrafi maalum bi xëy sarfi wala bi xadri dirhami fe kaman arar yow ma onne ni wa sabar woo yow ma badari wa nasar xayra wa fahimi daa waxam ne ku ko def ku ne rek mel nga ne ku teewe badal ku ci dundalee sa àll ku ci jox ab dërëm wala suukar wala ndawal bi sukkarin aw mel nga ne ko teewee badar ko ko jàng tuxli ci ndox naan yu nawiru xal sarab min sarikal maabil mu jaab wala xal ba yu yu doonaa waan saqaan yax te dañ naan gàmmu biddaa la dama leen kon muy biddaa boo xam ne biddaa bu bu yàlla tàmbalee biddaa ba ab tàmbali la tudd kon waaye du biddaa buy firi biddaa ibtidaa lay doon kon ndax loo xam ne yàlla da koy def sant yonent yëpp ñu di ko def malaaka yi di ko def ko koy def ko ne mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yonent bi sax eh, yaa ayyuha allazina amanu ji day tax mooy day def salaatu ala nabi di julli ci boppam ndax dina bëgg a bokk ci ñi gëm yàlla yàlla di ko def malaaka yi di ko def mu ne sant naa ko ñu baax ñëpp te salaatu ala nabi boobu ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan benn bu ne di 92 92 quatre fois yi boo ko boolee mooy sallallahu ala muhammadin nga xam ne kon da koo julli da ko cee def ba noppi kodewaat ko ci ni mu ko kodeelee wa in yàkkaadu la si na kafaru la yuslihuuna ko bépp séeréer la ma sàmm si kër wa yaqulu innahu la majnun waaye la sikun la min da foofu nag da ko ne musal na ko ci ba noppi ñi doon wax naan dof la mu ne leen doonu lub dof innahu ilaa sikru lil aalamiin day wax ak borom bi comment saa yi bu ko bila mañ noonu it waxaat na ko fenn nga xam ne miimal na ko ndof gaay yoon te suñ mag biir ba mu daan wut yàlla di wut uh, yonant bi di réer bokk yi dañ doon wax naan daa dox bi ba mujj ci xam nañ ne fa mu Cheikh Ibrahima ba muy Sëñ dañ doon daa dox dama leen ku yaa la daale ca ñuy wut yàlla ba ci Cheikh Ibrahima ci mujj a génn koo ciy wut ku ne dañ naan daa dof waaye fa nga sa mujj mooy balay bala sa mel mbokk defete nga yëg ko Cheikh nag ci noonu la ko doon doxe rek ni ko gaa yu baax yi daan defe la ko doon xam nga béru ci doxinu bopp mu bokkut ak ni ñu santaane doxin yi ko yu yàlla santaane mbégum yàlla lañ ciy sàkku ndax ku bégal yonante bi bégal nga yàlla mënu ci mënu ci rasul faqat ataala fa in tuuti yoo taxatuloo loolu suñu borom de ku topp yonante bi topp nga ma te nee na ku ko ci topp dina nga jub loolu nag foofu foofu yoon nag la sëñ Tuubaa jaar jaarloo ci képp ku ko yaakaar ci la loolu ko doon tax si moom bi sunna te yàqu du naa jant bi daal di ninati dundal ko ni ñuy defee ko ni ñuy defee sunna bañ koo fooyee bañ bañ cee defi toppale nee na yàqu du naa lil day yokk ay xéewal may may la yiw noonu ñi ko doon defee nag la ko doon defee taxawaay buñ ci am bu weesu biñ ko war am fii ne mi ngi mel ne nga dem naan ilimaan ci jàkka ji nooy jullee di xam nga julli amul ko salloo kama kama raaytuma usalli yonent bi julli yàlla da ko aqimu salaata waatu sakara jooju ba mu ko ko waxee xam nga da ko wax waaye ba mu ko daataa def jibril la ñëw jàngal ko julli tisbaar la jëkk a julli te daa ñëw jiite ko tisbaar mu gis ko mu jiite waat ko takkusaan mu gis ko mu jiite ko timis mu gis ko mu gee mu gis ko te fajar su mu jiite si waat ko mu gis ko léegi muy moxtaar mi ca daruuri bi mu delluwaat bàyyi ba julli tardé su fajar gi mu tar tardel ko julli ko niñ koy defee mu gis ko def ko tisbaar def ko takkusaan def ko timis def ko gee nga xam ne da nga gis muxtaar mi gis daruri bi bi nga xam ne mooy mooy biñ tànn da nga da nga koy gis inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan nga xam ne dañ ko heure dañ ko bind ba noppi heurele ko wutal koy heure dana la woon nag heure heure sustu bi ak woon la won na tardement bi loolee nag ba mu Jibril la ko ko defal ba noppi yonante bi def ko nit ñi gis mu ne nag sàlloo kamaa ra'aytumuunii usallii jullee leen nii ngeen gis ma di ko jullee Cheikh Ibrahima ba muy topp sëñ Tuubaa noonu la nee ba mu ñëwee ba jub ko Jibril li jóotu fa kanamam raam mu raam mu sujjootal sëñ Bamba mu sujjootal ko jóge fa nag tegle yoonu tëral bi nga xam ne sàlloo kamay raytu moom au rek mooy noonu noonu nga ci laaj ñu ci Cheikh Ibrahima daan taxawee daal mooy jàkka joo dem daal fekk Allahu akbar nga cee dégg di cee dégg asalaamaaleykum mu jublu penku daal mu jërut laaj nu ilimaan ji taxawee soññe bi de moo ku bëgg lu baax ku ne daa daa te gannaaw ku ciy jéblu ko ne yaa indi sa bopp ñu bari na ñu koog ba muy jéblu sëñ bi da ko ne noo tudd moo ko yow wax ko nam sant a ab gàtt nag bu wutalee boppam ab sër di war naa mën a fexe ba bañ a la la taxan di wut si sëñ bi daal di fekk yaa ngi koy jàpp sëñ bi moom la wan ci moom a nga ci moom fii nag jimboog timmaseeg yooyu la rajo yi jaay waaye dugub bi suuna ak ceeb ku ci ne yaa koy ndax sa jumbox la koy sant jaajëf